tay dañuy woon nañu waxtaan nak euh, sénégalais yi parce que ci ci fane ñu weesu ñu dégg ni coow lu bare ci wàllu institut Pasteur ñu gëm ni wax ji mi ngi law ba di bëgg yàq liggéey bi dem ci Covid 19 ñun nak euh, li ñu bëgg moy mbass mi joggé fi euh, moo motax lépp wax jo xamni daf ko nar a yàq maanaam ci walu li ñuy def ci walu saytu wala ci walu ñuy def liggéey. war nañ si jóg leeral ci askan bi loolu moo waral tey waxtaan bi ñu gëm ni itam ci waxtaan bi li si ëpp solo mooy ñu wax ju leer wax ju dëggu euh, ci wàll woowu journaliste yi am nañ si wàll wu rëy que ñoom tey fi ñu toll si xeex bi ñooy jottali xibaar yi te si jottali boobu bu ku nekk fagaroo fa nga nekk ci li wàllu feebar bi nga bëgg koo xeex dana nu feebar dana fi gaaw a jóge moo tax euh, ñu doon wax rek ni Institut Pasteur moom ben fondation la bo xamné bi Sénégal euh, fondation bu Sénégal la et que ci walu woowu mi ngi liggéey ci walu saytu di liggéey ci walu xeex euh, épidémie di liggéey ci walu tagat euh nit ñi ci walu santé ba pare itam di défar euh ñak ñak bi ñuy défar tay moy fièvre jaune mu nekk lo xamné yag nañ ci Euh, moo tax tey bi nu woowee bi nu déggee wax ji ci wàllu Covid li ñuy wax ci Institut Pasteur nga xam ni dëppoowul ak dëgg ñu ni leeral askan bi am na ci solo ñu woo journaliste yi waxtaan ak ñoom ci wàll yi nga xam ni bëgg nañ ko xam démb yóndee nañu ci këru taskatu xibaar yi benn communiqué pour xamal ni Institut Pasteur fondation boo xam ne bi sénégalaise la parce que nit ñi dañuy wax ni du fondation sénégalaise ñu leeral rek ñaareel ba ñu wax suñu taxawaay ci wàllu Covid bi ñun test la ñu dénk maanaam bu nit ki amee ay màndarga jàngoro ji walla nit koo xam ne kii dafa jegante ak ku am màndarga jàngo euh, màndarga feebar bi ñu seet ko saytu ko pour que bu dee dafa am feebar bi ñu yóbbu ko kër docteur faj ko ba pare aar ko aar ñi mu nekkal pour feebar bi bañ bañ a law loolu mooy li ñu si jagleel ak toog di xalaat ak ñëpp. Euh, liggéey bi nanuñ ko war a defee ba mbas mi génn ci dëkk bi ñetteel bi itam ñu doon wax ci wàllu faan ñu ni ñun faan liñ ci wax euh, ci docteur yi nga xam dañ ne woon ay test test baaxul li am rek mooy ni euh, dañu jot fii ay prélèvement yoo xam dañ ko def indil ñu ko mu jóge ci docteur yooyu faan prélèvement yi bi ñu ko jëlee bi nu ko xoolee ñu gis ni que bi ñu defee liggéey bi information yi mu àndal dafa dafa leerul wala dafa dëppoowul ak li liggéey bi wane kooku saa yu ñu ko gisee dañ naan nañu demaat prélevé indi ñu information yi parce que dañu bëgg lépp résultat bu ñuy def mu nekk résultat bu wër ci wàllu woowu nag lanu woote ñu nekk fan ñu indiwaatal ñu yeneen prélèvement ñu def ko bi ñu ko defee ñu gis ni ñooñu amuñu feebar bi euh, ñu daal di jébbal information boobu ministère de la santé bi nga xam ne moom moo war a Euh, génne information yi ministère de la santé communique loolu rek la du leneen ñeenteel bi ñu déggoon fan yële ñu ni que dafa am ci wàllu prélèvement yi def ñu nu laajoon ay ay prélèvement ci wàllu liggéey bi que ñun dañ ko bañ ñu wax ni loolu mosul am te amul kenn ku ñëw fi laaj ñu ay prélèvement ci wàllu liggéey bi te defuñu ko loolu daal la ñu bëggoon leeral moo tax tey ñu waxtaan ak journaliste yi pour si seen wàllu laajte wàllu xam-xam lu ñu si bëgg rek ñu jéem ko wax pour ngir leeral askan bi parce que li ñu tax a jóg ñun mooy feebar bi jóge fi euh, moo tax tey ñu waxtaan ñu ñëw fii pour waxtaan ak journaliste si wàllu woowu.